ne moom la ñu doon amal ci réew mi Sonko dafa waroon a ñëw wala mu yeble ay ndawam moom Seydina Issa Laye Sambo nee na Sonko bu doon nit la koo xam ne ku intelligent la ci dialogue national bi dafay yebal ay nitam ndax dialogue bi bëri na loo xam ne mën na koo lijjanti te dialogue ko dafa yàgg ci Sénégal moom Seydina Issa Laye ci journal bi di réew mi quotidien nee na Ousmane Sonko maanaam dafa def ay erreur ndax dafa waroon a dem ci àtte bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak Adji Sarr yéen kay gi de la quotidien yor yora ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne ñoo bokk ci Pastef nekk ca Sonko maanaam doon nañu ko samp ngir nag mu nekk seen candidat ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mobilisation bu rëy la waa Pastef Canada amal journal xëy fekk fa Mamadou Ibra Kane moom nag nee na dafa war nekk candidat ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Mary Teuw moom nag muy woo Ousmane Sonko ak Macky Sall ngir nag ñu daal di toog waxtaan ngir nag ñu am ci lenn loo xam ne danañu si daal di déggoo yéen kaay gi Ba daat nay wax ne Benno Bokk Yaakaar mënut a gagné Ndakaaru ci yi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam deuxième tour lu munta ñàkk la ci élection présidentielle 2024 journal bi di alerte nee na Marwan Ben mi nga xam ne mooy directeur publication Jeune Afrique nee na Amadou Ba mooy favori ci candidat yi nga xam ne ñoo yëglu ci coalition benn bokk yaakaar yéen kay gi di Rewmi Quotidien Thierno Alassane Sall moom nag nee na d'accordul benn yoon Khalifa Sall ak Karim Wade di ñëwaat ci langue politique ndax moom li mu jàpp moom Thierno Alassane Sall nee na ñaar ñi maanaam wëratuñu leen a dénk loo xam ne jege na ak alalu réew mi dañu leen di tuumaale lu jëm ci wàllum détournement Touba ndax nit bu ñu ko tëjee ci yenn yi am na yenn yoo xam ne waratuñ ko ko dénk ci réew mi lu jëm ci wàllum gestion ressources publiques yi loolee Karim Wade Khalifa Sall dañu see war a sippi seen loxo ba ñu set ci weccee Cheikhna Alassane Sall moom nag d'accord ci réforme yi nga xam ne jamono ji ñoo koy amal ca assemblée nationale ndax nee na ñëpp xam nañ ne code électoral bii nga xam ne andi nañu ci ak jubbanti dafa am ñenn ñoo xam ne ñoom la visé Karim Wade ak ba tey ci biir yéen kaay gi de libération ñu fekkaat ko fa moom Thierno Alassane Sall nee na waruñoo jël sunu réew mi di ko dénk ñenn ñoo xam ne dañu leen a lu jëm ci wàllum détournement deniers publics maanaam waruñoo jël sunu réew yi di ko dénk ñoo xam ne dañu leen a tëj tuumaal leen lu jëm ci wàllum luubal maanaam lu jëm ci wàllum ngembal alalu askan wi wala sax ñu ne lu jëm ci wàllum sàcc alalu askan wi yéen kaay gi ne enquête nee na lu jëm ci mbiri Karim Wade opération blanchiment jamono ji ci la yi nekk yéen kaay gi di Direct News mi nga xam ne mooy njiital coalition républicaine républicaine sàmm sunu réew a moom nag nee na jamono ji li nga xam ne moo war ci réew mi maanaam ñu joxante loxo boole suñuy doole ngir nag Sénégal mën a ànd akuk daal rawatina jamono joo xam ne ñoo ngi wax lu jëm ci wàllum exploitation gaz ak pétrole yéen kay gi de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu askanu Sénégal ndax yëg ngeen ne maître Abdoulaye Wade ak soxnaam ji di Viviane Wade ñoo ngi ndakaaroo démb la ñu ñëw Ndakaaru vol spécial moo leen indi ci Ndakaaru yéen kay gi di Direct News xëy di ñu xibaar lu toll ci téeméer ak benn fukk ak juróom-ñetti milliards yi nga xam la ñuy wax ne état bu Sénégal moo ko war a fay ki nga xam ne mooy bii Bibo Bourgi loolee ministre bi ñu dénk wàllu finance ci réew mi di Mouhamadou Moustapha Ba daan na koy weddi ba tëdd sa naaj wa nee na amul lenn loo xam ne maanaam Sénégal war na ko fay maanaam du fifti na te ki nga xam ne mooy bii ba Bourgi moom nag dañu ko daan mu war a fay état bu Sénégal lu toll ci cent trente huit milliards loolee sax moo tax bëri na moomeelam yoo xam ne teg nañu ko loxo yéen kay gi de Le Quotidien yor yor na xam ne mooy contesté bi nga xam ne moo jóge ci tribunal xaari Moustapha Ba kan la yàpp de sa mook Moustapha Ba loolu la journal bi xëy di laaj yéen kaay gi di wal fajiri nee na état bu Sénégal jamono ji dafa mel ni ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa bañ a fay ki nga xam ne mooy bii Biba Bourgi yéen kaay gi di libération nee na parfum de scandale maanaam scandale mooy xeeñ ci société bi nga xam ne mooy SOGIP lu jëm ci wàllum exploitation Dakar Arena stade Maître Abdoulaye Wade ak centre Abdou Diouf yéen kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naa ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci aftu ñoom nag dañoo géréew géréewum ñetti fan la ñu géréew kaay gi di source a ah, xëy xibaar naan ñu police bu ginnaaw raay ci ndakaaru da def opération waaye nag dafa am ku ñuy wax fàllu ak benn xaritam boo xam ne ñoom drogue la ñu yoroon waaye nag bi leen police yi la gars yi tëb miirub autoroute bi ci sorti caaroy bi ki ñuy wax fàllu bi muy tëb ci autoroute bi fekk ab oto maa ngi daw bu baax a baax oto bi dal ci kawam journal bi nee na ndax mujjut a ñàkk bakkanam yéene kaay gi di bés bi xëy ñu xibaar naan ñu bu mburu yokkee ci réew mi bu mu leen bett waaj leen bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci Amadou Gaye mi nga xam ne moo jiite fédération bi ëmb ambulance yu Sénégal nee na crise jamono ji moo am ci lu jëm ci wàllum bele bi moo tax bu mburu yokkee gars yi bu mu leen bett yéen kay gi de la turbine nee na tam xarit gi léegi tey mu yegsi te ginaar jamono ji dafa seer ba maara d'Italie moo tax ñi nga xam ne ay way la lañu ñi seen loxo jutul seen ginnaaw jamono ji nelawutuñu ba yandoora bu dee am na ñenn ñoo xam ne ñoo nelawutul ba yandoora mooy askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba lu jëm ci wàllum inondation yi wàllum mbënn mi jamono ji sonal na waa Touba lool bu ñu sukkandikoo ci journal bi du Source A APL moo am ci diwaanu Touba ñi nga xam ne ñooy waa ONAS maanaam ay digge yu tooy xëpp la ñu digge Touba te gis nañ bi mu tawee Touba askan wi ay jafe-jafe la ñu am demal hôpital Ndamato hôpital baa ngay tëmb yéen kaay gi de la point ci xën mu njëkk ma mu xëy di ñu xibaar naan ñu journaliste Madiambal Diagne génn na ab livre ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr journal bi nee na Madiambal Diagne wane na Ousmane Sonko dikk na ci Adji Sarr mi nga xam ne ay yoon yoon yoo xam ne bëggoon naa xaru ak Macky Sall nan la bëggoon a sauver Sonko bi mbir mi di commencé